nettalib ñeen fukkeel bi ak juróom ñaar lu aju ci xar baax yi sëriñ bi ba tey am na gaynde gu doon dàq aw rab ba ñu agsi ci sëriñ tuuba qaala lahu llahu maxtaara lahu fekk booba mi ngi bind matlabul fawzeyni mu tàqali seen diggante ci xool ba mu xool gaynde ga wér na lool wa xaysu ma taxaf ilaahaka al ahad yaxfaka min xawfikahu kullu ahad bu ñu fàtte ni ci biir matlabul fawdayni la doon waxe hada wa inni al yaa wahaabu gayraka fi daarayni laa ahaabu mel na ni kon nettali bi day dëggal li mu wax ne ragalul kenn kudul yàlla subhaanahu wa taala ndax gaynde moo gën a raglu ci rab yi ñu xam ci àll bi bu fekkee ñëw na ba ci moom te taxu ko raf lam doon bind dara dammu loolu li muy xamle mooy loolu mu bind lu am la loo xam ne jaratul firnde wallahu aalam nettalib ñeen fukkeel bi ak juróom-ñett sëriñ Tuubaa qaada lahu llaahu mës naa wax kenn ci toolibe yi ci ëppal njariñ mindeef yi bu noppee wax ak yéen fii lañu ko tànnal te mooy fii barab bi nekk tey wér na lool lii daa ci dégg ni sunu borom subhaanahu wa noppi na ci lépp ndax sëriñ bi qaala lahu llaahu maxtaara bi mu koy wax ak bi mu làqoo ba ñu denc ko fa soree na lool lii nag war naa tax ku nekk di teey tey sàkku ndimbal te xam ne kenn mantu sottal lu yàlla bindul yàlla nañu yàlla dollee dimbali ci jëm ca la mu ñu tànnal tey soreek lépp loo xam ne tànn ko ci sunuy jëf ak sunuy wax ci barkeb sëriñ tuuba qaada lahu llahu maxtaara lahu wallahu aalam